ayca mooy noonu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar demaat mbégte ak kontaante di nuyu képp koo xamante yaa ngi bàyyi xel euh, site bu mag bi mooy lutte motivation ñoo ngi lay bu baax a baax di la jaajëfal a du nuyu ne ñoo tëdd ci lal hôpital du nuyu ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw di la ñaanal li nga xamante mooy liberté tey nag ñoo ngi fi nga xamante ne mooy yoof seet si champion seet si ndaanaan seet si kenn koo xamante ne yàgg na def ay preuve am ci làmb muy caatu ngiwél la grand champion keroon nag Euh, ci arène nationale daan ko jël bu amul benn werante moom lañ seet ci fas a waxtaan ak moom ci li nga ne mooy làmb ji mbokk yi dama koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu li nga xamante ne mooy waxtaan le grand champion Thiatou Nguéweul maa lay jaar. Khalil maa lay fay di la nuyu xës daal di sant yàlla di julli si yonente bi di gërëm sama ñaari waajur di nuyu waa Yoof di nuyu Ngor Wakaam Yoof Almadi Tarawo di nuyu aussi waa Kër Massar bu baax waa Bambilor waa Déen di nuyu waa zone boobu bu baax a sant yàlla aussi. di julliwaat si yonante bi di gërëm waayoof di jël nuyoo bi di ko teg si loxo xalifa général bi maam du Laye di ñaan mu yàgg fi taan ak wér kal Serigne Touba di nuyu Tidiane yi ñaseen yi xaadir yi ak bépp kilifa diine bu fi nekk di nuyu sama Serigne Serigne Cheikh Fall ibnu maam Saliou Fall borom ngaa ci maa ngi lay bëgg. yaa ngi dallu. waa ñu ngi dallu nii rek bu am quoi waaw. noonu dundee li nga xamante mooy victoire. waaw victoire bi ni ñu ko dundee mooy lu waroon am la daal. du loo xamante ne lu nu beet la quoi waaw. wala nga ko sentiroon daal. non xamoon naa ne moom lu mu métti métti damay daan Baba Diakhal. keroog mooy génn sa di dem stade ban yëg-yëg nga. ndam rek yëgeegu ndam. waaw moom lan am de. te tamit moom la nu yàlla delloowaat quoi. ba ñibbisee. waaw ba ñibbisee fii neex na waa dëkk bi génn nañ aussi di leen nuyu di leen sant bu baax waa dëkk bi yëpp di leen wax gis nañ seen taxawaay quoi. waaw di wax nan gën a yokku ñaan yi rek. Euh, tey jii euh, ñu gis euh, combat bi bëri woon na coow sa diggante ak Baba Jaxal ñu si bëri sax demoon nañ ba ne combat bi est que dina am ak coow lu ci am ak yooyu noonu xam nga jàppal baay beeg yooyu noonu nan nga dundee li nga xamante ni mooy coow yi laataa làmb ji di am. waa làmb moom xam nga làmb ju ñëw làmb moo coow ñoo ànd làmb ju mën a ñëw làmb ju mën a doon sa premier combat ba combat bi ngay mujjee bàyyi di zibilé sax lépp coow lay doon. moo tax yooyu yëpp dañuy xam ni moo làmb ñoo ànd rek. mës nga dund euh, euh, mës nga euh, bu bëree nii coow. waaw. bëri naa ay combat yu bëree sax. foo dugg si Instagram bi si TikTok sa bopp ak yooyu. non bi moom bu dee ko jëloon si yi wax dëgg yàlla moo ëpp waaw coow si combat yëpp. mais bëri naa ay combat yoo xam ne maanaam moo gën a doon ay combat jànq quoi si qualité adversaire yooyu noonu mais combat bi nag si côté coow moom. wax dëgg yàlla bari woon na coow ndax baaba daa bëggoon combat bi man tamit daa am loo xam ne dama ko waroon a confirmer quoi si lamb bu ci stade bi euh, dugg si ba gis say supporters ban yëg-yëg waaw yëg-yëgu rek indil leen ndam. billaahi yëg-yëg boobu kese lan amoon. te sunu boroom dimbali nañu su quoi. sa adversaire waaw liggéey na moom wax dëgg yàlla. liggéey na te bëgg na combat bi bëgg na combat bi mais. xëy na tamit noonu rek la waroon a demee di ko wax champion la na jàppaar rek waajal li si kanamam yee. bi nga dugg see gis ah, mu indi état bu garaaw boobu keroog lan nga wax. non non wax dëgg neex yàlla nag gis naa ne xam naa am nga nit naan lan am na loo xam ne soxor la man bi ma ko gisee xam naa ne Baba Jaxal liggéey na mais xam naa lu mu liggéey liggéey bu ndalantee moom ma daan amul dara lu wàññeeku ko. non gis boobu rek non keroog combat moom ku ma gis instant di nga xam ne à dama ñëw pour jël si sama ndam dem ñibbi waaw. mbooloo bi Babou Diakhal indi ndax déranger wu la gis mbooloo mi kat looy kii daal. sama booy si cubukaay fi ma toog damay jékki daal leen yee eh, kii ba bëri nit. loolu <laughs> eh. dafa ma dara nag wax dëgg yàlla ndax man moom lépp lépp à l'aise laa koy jëlee. fi ma toog day jékki non non sama booy sama gars yi ma àndal si cubukaay damay jékki-jékki ree leen mm-hmm. ay waay kii ba bëri ay nit. Mm-hmm. kii moom nitam yi macha allah billahi mm-hmm. mais amul dara lu mu wàññi si man quoi ndax man. minna di génné di bëré ji mbapat fo xamanténé duma du ak kenn di fekk ji ay mbeur seen dëkk di bëré ak ñom mbapat kon di lool mo ëpp risque quoi. Euh, source de motivation la voilà lambu lambu arène xam nga amu risque. ndax tay ji amna amna ay gendarme amna CNG amna na leneen ak leneen mais mbapat ag ñëw bindu amul CNG amul sécurité amul dara te da ngay ñëw di bëré ci yoy mm-hmm. kon lool jaaxal loolu. non non defuma dara wax dëgg yalla mm-hmm. arbitre visible siffle sa ak euh, Baba Diakhal. waaw arbitre bi sifflé ñu def round d'observation ma taxaw jàng ko moom tamit mu taxaw jàng ma ma teg garde normal mu teg fausse garde ñu jàkkaarloo ku nekk bu ngeen dalante yéen ñaar waaw ba waaw dalan bi ñu dalantee moom moo dóor ay coup waaw bi na ma ay coup yu bari mais damaa xam ni daa am lu ma ut si rek waaw am na doole nag wax dëgg yàlla waa liggéey na de am na doole de billaahi. Mhm. ñu si bëri dañoo yaakaaroon da ngay ñëw ku euh, ñëw saxal li nga xamante ne mooy xeex bi mais ñu gis ni bëri bi euh, làmb ji ci euh, ci bëri la jeex. non non làmb ji làmb ji laajul woon sax xeex quoi manul ñàkk nag ndax làmb dóor la par force dañuy dóorante mais man sama côté làmb ji wax dëgg ne yàlla am na leneen lu gënoon ne sama xel quoi lu ay xeex ñëw jàpp baaba jaxal daan ko. man loolu mooy li gënoon a ne ah, sama day bëre non day bëre moom day bëre mais maanaam bëre bi muy bëre ak man bëre bi mooy bëre bokkul dafa différent waaw mm-hmm. tey lan moo nekkoon ci yow loo xamante ne tey jii mooy ay qualité te nekkul ci mbër bi mooy Baba Diakhal waaw Baba Diakhal boo xoolee ñun ñaar méngoo wuñu bëre ndax moon sama bëre heure bu ma dal heure bu dalantee rek maa ngi jéem di créer leneen mais moom bëreem boo xoolee li si ëpp day jàpp taxaw est que yaa ngi comprendre te dama doon travailler si loolu jàpp taxaw boobu muy jàpp taxaw. dama si travailler bu baax ba pare waajax combat bi ku si mel ni Canta ñoo waaj combat bi ku si mel ni trompeur tamit aussi Canta day bëree le 6 incha allah yàlla na ko yàlla mooy ndam lu seddu guy. combat bi ànd na ceeg moon ñu entraîné si daj si ay lu mitti ak benn booy bu dëkkuwaale trompeur bu jawar xam nga ak sama gars yi ñoom baaba ay mbër géwél sekk ndaanaan. gars yi daal jàpp nañu si combat bi bu baax a baax di leen bëgg ak bébé Ibrahima kooku moom sama lépp la maa ngi koy bëggee bu baax a baax ndax kontaan nga gënoon favoriser wala li nga xamante ne mooy xew parce que gis nañ ah, da nga ci da nga ko da nga ko bëre non lamb ji boo xoolee benn jour laa dem takk gan si la ay vidéo génn noonu benn jour laa si takk gan mais contact laa gënoon a favoriser quoi ndax am na loo xamante ne lamb xale li si ëpp bëre lay jeexee voilà te xale xanaa du favoriser xeex te li gars yi naan boo mënee bëre xeex da lay coono la si yow dëgg la bu ngeen jàmbatee bu ngeen jàmbatee yéen ñaar mu am ngemb nga am ngemb fofu euh, ban yeg yëg nga am ak tay ji nak amoo woon benn dut fofu non te lamb ji baabu mu na la sonal. non non non non bo xoolee mom bima jappé mu ngi dóor mais man dama téy fi ma téye rek ndax xamna ni ak lepp lu mën xew limay limu bëgg def heure bu mu ko défé mu daan gis nañ ben ins muy daw dila la tax mais da nga roccé waw xalel est-ce que seetaan nga samay lamb seetaan naa say làmb man musuma dem yéex mbër mu daan ma comme ñu jappanté ni bëré dama yee nga daan ma noonu may ñëw kañ xex def yëfi dof xërëble nga sacc ma daan mais comme nga japp ma japp ñu commencé bëré ngay bëré moy bëré nga japp ma daan ma musul am. ngeen bëré nga daan Baba jaxal après cioli bëri ñu ci bëri nenañ Baba dafa bëré ak li nga xamante ne blessure gaay yi yaakaar ay fausse information la mom ñu genn gis ko mu band loxo beeg yoy bu nga gisé yoy non bu ñu yëg nga am wa dama koy massaw rek dama koy massaw ndax wax deug yalla liko dal metina xeyna nak mom manon na xol nenen wala mu jema def lenen mais xeyna loxo bi tak bi mu ko tak après mo ndox mi mo dajalo si loxo bi quoi. infecté loxo bi dafa mujjé infecté. saafara yu bari yim don sangu mooy infecté loxo bi ñukoy ñaanal yalla nako yalla wëral mhm. diko ñaanal jàmm bu baax baax ndax làmb moom tey jii muy beure gis nga mbeur li mod Lo wax mën ta beure combat te am blessure. manta ne mbër muy bëre combat laa la wax moo xam ay nitam xam ko moo xam ñu ñàkk koo xam par force day am blessure ndax contact moo demee noonu. dégg nañ ko moom mu ne euh, depuis vendredi la ko affaire bi dal mais nee na bañoon yàqu journée bi moo tax mu ñëw bëre. waaw ñu ngi nag depuis vendredi la ko dal waaw loolu laa dégg mais nag man moom wax dëgg yàlla xëy na damaa jàpp lool loolu lu ko war a dal rek rek. laalew ma si taxew ma si. maa ngi siy dégg nag ay rumeur quoi. gars yi ñu ngi wax lu ne. baaba jaxal xanaa duñ ko jox xaalis jox ma xaalis mu préparé ji ma préparé ji muy xullee man ma koy def lu bon. mais léeg-léeg mystique yi duñu yem. man làmb ji favoriser wu ma si sax làmb ji barki alxuraanu karim est ce que man toog tooguma see ñaari nit yu may ñaanal te mosuma toog ak nit nekk. ba woon Guinée jaxal moom moo dëkk Guinée. est que dem. gars yi demuñu fenn. gars yi demuñu fenn ñu woon fii. parce que ko atteindre mystiquement. non non non loolu ah ndax tey jii nii man. Baba Jaxal boo xoolee combat bi mu bëree man maa alliance biram a gënoon a métti ndax man bi may bëree alliance biram si côté kattan ñëpp dañ foog ne aw ma si sens te combat boobu bi mu desee un mois entraîné entraîné wu mu minute te bi ma ñëwee dafa yomb si man carrément waaw mais bisu daanoog su daan daal du benn ñu ngi koy encouragé di ko ñaanal di ko dal noonu yàlla na ko sunu borom saafara. gis nañ ko mu génn def sortie di la féliciter affaire yooyu. waaw non Baba Jaxal ak lépp lu mën a xew ñun ñun ñëpp ñoo bokku ndey ñoo bokk baay. barki alxuraanu karim lépp luñ mën a waxante wala lépp luñ mën a defante après bu jeexee day jeex. ndax tey ji adversaire bu sax amu fi moom instant yi day dem xooli leneen man damay xooli leneen. kon nag ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. di waxaat gars surtout ñii di nekk si réseaux sociaux yi. na ñuy wax ay wax yoo xamante ne ay wax yu rafet la quoi. ndax nit ñi seeni i kilifa dañuy dugg si net bi. di seetaan ñuy saagaax ay di wax wax ju ñaaw wax ju ñaaw ñëpp mën nan ko yomb na trop toog fi nga toog taal sa téléphone saaga koo xamante ni boo leen saaga kon mën na ñàkk loolu amul dara lu mu si làmb amul dara lu mu si wàññi ragal loowul mbër mbër xool la nga ko saaga amul dara lu mu koy wàññi kon nag waa nan jéem a bàyyi yooyu quoi te jéem a xool leneen jéem a avancé ji yor beneen esprit esprit sportif am na solo da ngay wala da ngay xool leneen non man maa fi pour Eh, sa potentiel adversaire. ñàkk jariñu. ñàkk jariñu sa diir sa kaw. barki ñàkk ainsi lu ko dese du simmaku. lu ñàkk bu simmakuwul kuy simmaku laa bëgg a xam. <laughs> la bëgg wax foofu. non ñàkk moom danoo waxtaan si groupe yi avant. Hmm. ba si semaine ko bi maa ngi ko fekk si groupe ma ne ko ak lépp lu mën a xew. Hmm. damay daan jaxal nga ñëw ñëw nga may ma chance. Eh, ñàkk moom day yóotu day yóotu leneen. lu mu yóotu ñàkk. nga doon jël yeneen bo yenn boy. déedéet ñàkk Jackson a ko mujjee daan. Hmm. na ñëw bëreek man. est-ce que capacité yi boobu. barki Serigne Bamba Mbacke ak <laughs> ñàkk gan capacité la am bu ma amul. ku ma respecté la nag grand bu baax la mais aw ma la lu may bàyyi si woon xel de. côté seewu ma ko sax. lan nga mën ci ñak bari na comme lan daan ko loolu dangereux la de mala ñaxaama gën a pànk gënuma pànk de mais dafa bari bagage non ëpp mooy bagage lan mooy bagage yi bagage yi lu mu yàgg yàgg lépp si bëre lay mujj bëre bagage yi kañ tam ñàkk maa ko bëre hmm. waaw kan kan yéen ñaar kan moo ëpp sañ ci laam man kenn ëpp ma sa déggoo man bu may daanu sañ sañ may daaneel mais mbër mu ma jàpp man ñi may àndal ñëw wallaahi lazim xam na ni mbër mu ma jàppanteel ba mu des lu dul cadre bëree kase kase kase ba dara des wuure naxante mhm. mënoo maa daan ko seetlu li ma boo demee tàppel samay combat yi ma daanu ba xam jàppante naa mbër wuure mu daan ma mais Alioune Seye daal mu ngi noonu mbër la mhm. bu fekkee am na promoteur yu bëgg suñu combat mhm. su fekkee ni man arrangé na sama waa camp arrangé waa camp am man na ne buku ko arrangé wul nag moom. sa waa camp moom kay da leen non non pour pour. pour la pour lan nan la ñuy arrangé. Eh. Siteu la dan Siteu bu Ngor. waaw Siteu bu Ngor la daan Siteu bu Ngor champion la. sunu rakk la sunu lépp la. dañ koy ñaanal jaamu di kontaan si mom di ko wax gis nan taxawaay bi mom xeeru Ngor. fëgala bu Ngor ak mbëri Ngor yi yëpp di leen wax ni kontaan naa trop barki Seydina Muhammad di bëggewaat fëgala fëgala mom sama lépp la moo xeeru ak Siteu mais xam nga. tey jii am na loo xamante ne ñoom mënoon na leen see bañ a fekk mais jouru combat bi dañ ñëw bi ne suba la combat bi ñëw nañ fi si guddi gi jouru combat bi ñëw ànd ak convent bi dem stade loolu lépp ay gestes yu rafet la Alioune Seye daan na Siteu mais Siteu xale la Alioune Seye bi muy bëre Siteu bëreewul. nee na bu ko nekk ku si moytuwul mooy loolu dina la jaarale yoon. non loolu lépp ay détails la rek. Hmm. waaw man li may wax noonu gëwuma ko de. tey ku leen doon avance non bu fekkee arrangé na samay nit. ndax tey jii man du man maay décider. mais lan la ñuy daw ci Alioune Seye non non. am nga lan mooy tax li ko. bu bu tagee si Alioune Seye sax day nduru ni man dafa am lu ma bëgg si Alioune Seye. man maa la laaj. waaw. billaahi. Hmm. champion la quoi. Hmm. man ak moom suñu combat taxawul bis bu taxawee rek bu nu waree jëflante dina jëflante. plaisir hmm. la. ñooñu ñëpp ay champion lan. ça dépend rek xam nga tey jii man lan laa am am na ñuy waxaale sama combat am na ñuy taxawal sama combat des fois am na combat yoo xam ne man damay jékki-jékki dégg ni taxaw na rek laa si am xam nga li ma lay am ma dem préparé ji buñ si waxtaanee ñun si war a waxtaanal bu yembee rek yemb na. am na solo léeg-léeg dañuy gis yenn mbër yi léeg-léeg gis yenn mbër yi bu ñu amee combat dañuy dem à l'étranger di ko préparé foofu pourquoi yool Nguéweul duñ ko gis muy dem à l'étranger di fa préparé combat dafa ñàkk moyen wala dafa amul ku ko jàppale wala lan la. waaw instant yi nag loolu leen bëgg quoi te xëy na am na ñoo xamante ni war na noo mën a jàppale. Mhm. ñu leen di taalal suñu loxo pour nu jàppale ñu ndax bu nu jàppalee lépp lu def si ñun incha allah dinañ leen ko fay boo wis leen. doo boo ko génn mbër ñuy jàppale pour ñu dem entraîner ñu jaarale noonu daw. non non xalaatuma loolu sax. billaahi man instant yi toll nii dama fay seex mafia boo xam ne mënatuma daw génn quoi. commencé waat dundaat làmb. voilà mënatuma daw génn toog rek toog si tangke, rek. Mm-hmm. am na solo lan ngay ya tàggatoo ak mbokk yi. di tàggatoo di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ndayaay bu baax di begem Ndeye Biige di begem mama di begem mère Ndeye Ndoye sama xaritu yaay combat bi jël ñëw na fi def fi ay teranga yu bëree bare di begem Cons di begem di di begem Eva aussi di begem Khady gay, xam nga di bëgg di bëgg awa ñanga ñëw nañ ci togg yeex ñom ñëpp ay maam jor ma leen di bëgg bu baax di bëgg sama copain koñ bi ñom maam góora baaba mala góora jallo xam nga ndogo ak boy yeb ma leen di bëgg di bëgg nak boyu jigeen yi boyu jigeen yi ndaw yi ma leen di bëgg bu baax ñoom maretu dikkoon pelagna nday xadi xam nga abidjaañ sama fils bi xam nga di bëgg waat waaw ñoom xale yu jigéen ñi daal ñoom ñu pulim doo matal wax dëgg yàlla ndax xale yu jigéen ñi ñoom si boppam combat bi ñoom dañoo jël ay kaar ba pare sa soolu bari bàyyi seen yitte yëpp nekk si combat bi maa leen di bëggee bu baax di bëggee Modou sama doomu nday borom den borom la rose maa ngi koy bëggee bu baax di bëggee nag sama gaay mbayaari mbayaari moom mbayaari laay wax rek waaw ñu jël nun koy waxee maas noonu gi ndax boo fi nekkee di lim diw diw diw diw fi ngay fanaan mais maa ngi bëggee mbayaar yëpp di leen wax ni gis naa taxawaay bi ndax xam nga affaire yi métti woon na torop ku ne ax li muy wax ku ne ax li muy dégg xam nga ñu xam lu loolu lép ñoom ñëw dëggal seen bopp di leen bëggee di bëggee sama doomu ndey bàyyi jili tarkindaa maa ngi koy bëggee bu baax borom dëkk bi kenn du moom ku lay jox bàyyi jili moom ku ma jox mu jël léegi booy ñaanaan waa ji loo ma digal ma def lu ku ma jox mu jël di bëggee yaxi bambiloor aussi maa ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko ñaanal ko combat bi mu dëgmal le treize moo booy jaxaaw yàlla na ko si yàlla may ndam di bëggee caay caay borom déen maa ngi koy bëggee di bëggee doomu ndayam Seex mbaake ak mafia bi foofu yëpp ay lamin dooy maa ngi bëggee mafia bi yëpp di bëggee mafia ñaay bi nag waa ñaay maa leen di bëggee di jël nu nuyoo di ko jël di ko teg si loxo om Omzo xam nga di bëggee waa si kaw bu baax a baax waa si kaw nu nangaan di jël nuyoo bi di ko teg si ñoom Rasool xam nga ñoom Saliou ñoom Dun mafia bi foofu yëpp ay ngis maa leen di bëggee di bëggee booyu batiis yi bu baax di bëggee mafia caali bi aussi bu baax a di bëggee booy seeneen yi ñoom tamit kenn du ñoom takk nañ si rip di bëggee mafia mbayaari nëngaañ yi tamit ñoom goj ala boobu maa leen di bëggee bu baax di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di la ziar xalil di bëggee waaw xës daali bu baax a baax a baax. ayca mooy noonu am na solo di leen kontaane bu baax a baax du nuyuwaat. di bëggee baylo baylo mm. sama pël bi. lu mu watul baaxul moo ma dagg léegi di chaque jour moo may yàq maa ngi koy béggee bu baax combat bi sonn na si génne xaalisam di si def di ko ñaanal jaam bu baax sama waay la sama nit la jaajëf di jox di béggee jox baar bi sël solo <laughs> ayca moo ngi noonu am na solo di leen kontaane bu baax a baax du nuyu képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel Lutte Motivation ñoo ngi lay jaajëfal waaye du nuyu ki nga xamante ni mooy xës moom mi nga xamante moo nekk si di liggéey liggéey bu am solo boobu waaye du nuyu ki nga xamante ne mooy nday xarit borom la doowut maa ngi koy ziar baax a baax di wax seen émission xaale ko ci beneen numéro beneen daanaan jaa ngeen jëf